donc man maa ngi tudd Adja Yoni Thiam nekk aussi euh, aux élections passées une candidate la seule candidate du département aux élections passées nekk directrice de service techniques au niveau du conseil départemental de Rufisque nekk nag fii la coordinatrice du comité communal du nord ak Bassirou Fall aussi man maa jiite école Bassirou Fall pour Benno Bokk Yaakaar man maa représenté fi Benno waaw xam nga nag dañuy xam ne tey la dimanche te nit ñi tamit weekend rek la ñu am dañuy liggéey euh, vote bi comme ba 18 la man ça je l'avais dit depuis ce matin nee naa ñi ñu ngi doon ñëw mais bu ñu añee ba pare ba noppal ba pare si kàttanu yàlla ñëpp dinañ ñëw te loolu la ñu constaté donc vote yi man mii je suis la coordonnatrice war naa centre de vote yëpp gis naa si jàmm gis naa ci salaam wax dëgg yàlla siégeants yi manqué na mais pour ce qui est Benno Bokk Yaakaar benn Bokk Yaakaar est très bien représenté te vote yi bien que ñi ñaa ngi doog a ñëw mais amul benn problème puisque candidat yi bëriwul nous avons que huit candidats sur la table liggéey rek xam nga man en ce ma me concerne dama am sama base politique gendal te liggéey bi Macky Sall le président Macky Sall daf nu recevoir ni dem leen ngeen defal ma porte à porte nit nag booy liggéey moom da ngay respecté discipline parti dama ñëw gendal foog naa amul kër gu ma bàyyi loolu nag boo ko liggéeye te loolu ma def laa jàpp ñëpp loolu la ñuy def dañuy jàpp am ndam ndax yàlla moom moom yaakaar nit looy def rek da nga siy am yaakaar beneen bi mooy dañoo am un bon programme ndax nit ki loo porte à porte am un bon programme parce que le président a fait quelque chose dans le département de Rufisque li moo fi toog dikk ko lim donc duñ fi jóge donc ci programme boobu la nu basé wu jeunesse bi nga xam ne conscient wu nu woon ñun ñi nga xam ne conscient wu léegi gis nañu xam nañ ni affaire bi président Macky Sall moo ko yor et Benno Bokk Yaakaar xanaa jàmm ji ma am ak nit ñi. ñi daal def nañu ku voté ñëw nuyu ma ma am ak ñoom jàmm am ak ñoom salaam ñu dem dénoncé ma araam aram defuma dara loo xam ne état da koy tere yàlla nag moo ma may nit ñi ndax nee nañ booy wut alal wutal nit ñi képp ku voté rek comme ni ma ko waxee ñëw nga nuyu ma ñu kafante reewante ah nu jàpp ne nag benn bokk yaakaar bu gañee Adja Yoni Thiam moo nekk fii di influence nit ñi di jënd nit ñi te aram jënduma kenn dama am ak jàmm nit ñi rek jënd nan ma nag maa ngi si mbedd mi toog te duñu teree am ndam incha voilà merci beaucoup la presse donc euh, maa ngi tudd Adja Yoni Thiam Wade nekk responsable politique nekkoon euh, candidate aux élections locales passées nekk actuelle directrice des services techniques au niveau du conseil départemental de Rufisque nekk également sociologue et aménongiste nekk aussi la coordinatrice la première vice-présidente coordonnatrice de Rufisque Nord nekk également la présidente du comité électoral de Bassirou Fall voilà merci beaucoup donc euh, ni ma ko jàngate avant loolu maa ngi sant yàlla di julli si yonte bi salallaahu alayhi wa sallam euh, bi nga xam ni dañu seetlu ni euh, dañ fi gis jàmm d'abord te la paix j'ai la paix en tant que coordonnatrice de de la coalition Benno Bokk Yaakaar Rufisque Nord j'ai le plein droit de faire ma ma ma dama day yoon ma lépp luy centre de bord ma teg fa sama tànk pour constater li nga xam ni moom mooy vote bi te bi ma ñëwee fii Bassirou Fall wax dëgg yàlla gis naa fi jàmm gis fi salaam dugg naa ci bureau de vote yi seetlu naa ni toutes les listes sont très bien disposées disposées listes yi teg nañ leen ci yoon kees yi teg nañ ko lenn rek laa xaw na te siégeants yi xaw manqué mais li jëm lépp lu jëm ci benn bokk yaakaar euh, les siégeants de benn bokk yaakaar son très bien représentés dans les bureaux de vote loolu jàpp naa ne nag naaj bee xaw tàng xam naa militants yi xam naa ñi ngi ñëw ci yoon bi ndax xaw naa seetlu ni daal yëf ni xaw na yéex tuuti loolu xaw naa ko seetlu programme woon heure exacte hmm. na dina am prolongation ñu effectivement mon frère jàpp naa ni dina am dan la mesure où cette fois-ci donc la sécurité dafa am benn méthode bu mu jël autant donc élection yi passé ñii ñi dan daan voté ñu bàyyi leen ci centre de vote yi donc animation boobu centre de vote yi dañ daan animé vous avez comme l'impression que ñi ñi dañu ñëw voté loolu dama ko noté ci centre de vote yi mu visité yëpp mais cette fois-ci ku voté rek da ngay dem génn loolu aussi bu ñu si basé woo dañuy jàpp ne ñi ñi ñëwunu voté alors que ñi ñi ñëw nañu comme li ma la wax sécurité dafa génne ñëpp ku voté ñiy voté dong la ñuy bàyyi si biir centre de vote yi jàpp naa nag ñi ñi ñu ngi ci yoon bi déjà yéen ngi gis nii les circulations ñit ñi dinañ ñëw te le quorum ci kàttanu yàlla sera atteint neexee yàlla ah mais bien sûr la confiance est la dans la mesure où liggéey bi dañ ko def wax dëgg yàlla ñi ñi porte à porte bi président Macky Sall santaane woon au niveau de bi muy recevoir le département de Rufisque dafa privilégié parmi les stratégies de de campagne mun na nit ñi dem def ay porte à porte en tout cas madame Wade ak sama coalition pour gendal tous les gendal au niveau de Bassirou Fall man j'ai eu à sillonner toutes les maisons te là ça c'est rare dans une dans une commune toutes les maisons dama ko def jàpp naa ne noonu ma def loolu la yeneen commune def te liggéey boobu bu dee def nañ ko assuré ko ci kàttanu yàlla 18 heures ñu tàggoog ñoom ci kàttanu yàlla. effectivement ku na xam na ni élection yi passé euh, jeunesse bi euh, def ci dugaloon loxoom parce que quelque euh, quelquefois la jeunesse la jeunesse est puissante man tout temps dama naan stratégie d' ci jeunesse si la war a jóge si la jeunesse. te jeunesse bi aussi dañu nekk ñoo xam dañuy gëstu dañuy xalaat xam naa dañu dem ba conscient rek. ndax xam na ne macha allah benn bokk yaakaar moo fi ne te nekk na coalition boo xam ni dafa entamé ay projet yoo xam ne inclure les jeunes te les jeunes ñoo ci gën a cëru surtout et les femmes président lépp lu mu wax danaan les jeunes et les femmes jigéen nag moo ëmb lépp bu nu waxee la dan naan vieux yeeg yooyu non non jigéen moo ëmb jeunesse jigéen moo ëmb paa yi moo ëmb góor ñi moo ëmb lépp xam naa jeunesse bi effectivement ils sont très conscients te xam na ni léegi daal vraiment benn bokk yaakaar moo fi nekk voilà merci waaw ginnaaw bi ñuy sante yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Tëngéej rawatina nag gox bi ñu nekk muy Rufisque Nord ak quartier bi ñu nekk muy Fass muy suñ centre de vote ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne vraiment kontaan nañ si élection yi ni muy déroulé di ñaan yàlla yàlla dolli si jàmm. élection yi li si jàngat mooy actuellement. Euh, mooy taux bi nga xam ne ñoo génn pour voter dafa xaw a boo demee ci école yi presque nit ñi génnuñu mais ñun li suñ cër mooy fexe def le tout ba li des ci ngoon gi ñu mobiliser nit ñi pour que ñu génn pour voter parce que boo demee ba ne damay tànn ki may toogal ci pencum ndaw réew mi defe naa ne loolu dafa am solo parce que gouvernement bi li muy doxal yëpp politique am yëpp foofu nañ koy jaarale kon tey loolu dafa am solo solo goo xam ne ñëpp dañ waroon dem def tey seen devoir li si des nag ñu bàyyi ko suñu borom mais daal comme dafa jotoon pour voter nit ñi dañ waroon génn pour voter mais li ma gis sax dama yaakaar ne faveur bi si ñun la féete ñun waa bennoo Benno ko Yaakaar parce que foo dem rek ñoom nga fay fekk ñoom ñoo fa nag te loolu c'est très important. gis nga ne am na noonu wala. non yéen yéen les journalistes defe naa ne yéen a gis terrain bi depuis ce matin. man ngeen constater li nekk si terrain bi xam ngeen ndax am na tendance wala amul tendance di dëgg defe naa ne ni campagne bi doon demee élection yi demeewul noonu mais waa Benno Bokk Yaakaar li ñu waroon def yëpp ñu ngi koy def tey boo xoolee ñi fi teew ñëpp waa Benno Bokk Yaakaar ni di dëgg loolu lu laar la kon donc tey ñoom gëm nañ li nga xam ne moom nañ doon wax si campagne bi tey ñu ngi taxaw pour dëggal loolu ñun li ñuy yitteel rek mooy fexe ba le président de la république am majorité à l' assemblée nationale loolu ñu ngi siy def suñu kéemtalaay kàttan boole suñuy force pour que loolu ñu mën ko réussir li si des nag mooy euh, euh, maa ngi santaat yàlla bi nga xamee ne campagne bi déroulé na si jàmm ak salaam parce que ñunu neen la mënoon na ñaaw noon na am ay incident mais vraiment wax dëgg yàlla au niveau de Rufisque man gisuma fi lool te ñu ngi ñaan yàlla mu continuer noonu waaw wa waaw buy am ñuy am déception je crois que ne l'opposition ñoo war a am déception parce que am na loo xam ne temps yi passé ñu ngi ko doon wone loolu loolu nag actuellement defe naa ne répété wul si li ñu gis pour le moment man li ma gis pour le moment j'ai vu que ne fépp fu ma dem centre bu ma dem rek suñuy nit nañ fa fekk te loolu am na lu muy wone te li may wax defe naa ne constat boobu ñu bari def nañ waaw message bi may lancé mooy ñaan nit ñi ñu génn pour ñëw voter si pour que au moins taux bi war a mën a yegg fenn fi quoi parce que taux bi actuellement faible na trop te bu ñu sañoon du demee noonu bu ñu sañoon nit ñi dañuy génn voter pour que taux bi mën a yéeg mais fekk ngoon nag lu na xëj na fi fekk 18 heures du dëgg am na ñoo xam ne dañuy añ ba pare soog a ñëw am na ñoo xam ne dañu amoon ay soxla am na ñoo xam ne xëy na dañuy naajee yeewu mais li am solo daal ñu ngi ñaan nit ñi ñu génn pour ñëw voter si pour que bu ngoonee au moins taux bi war a mën a yegg fenn fi ñu ngi nuyu ñëpp di di la presse ñu ngi remercier la presse di remercier ñi nga xam ne ñëpp Benno Bokk Yaakaar nañ nag te vraiment takku depuis le 31 euh, le le 10 xawma lan ba tey ji ñuy rey seen bopp ba campagne bi ubbee ba tey ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne vraiment kontaan nañ di ñaan yàlla yàlla def jàmm bu ngoonee ñu am ndam ñu ne vive le président Macky Sall jërëjëf merci merci